sëriñ bi ñoo ngu jeeki ñaan kàqi dabay nangu dagaan nangul nu lépp luñ la ñaan ndax yàlla na atal xarnu bi nangu dagaan ci Mustafa mi nekk marwataak sawa ak aqi am nil Mustafa yàlla jébbal xarnu bi ak aqi maala may rakam ak aqi seen baay ñaam ak aqi seex yi bambaam ndax yàlla naatal xarnu bi mboole murid yàppa ngi tuub di rëcc bakkaar yi nu juub balu nu bay bay du nu góob sarang nu naatal xarnu bi mbàkke dangay boromi boote sa njaboot tawat gi loot ñu def maam antal pareet may la putoo waa xarnu bi ama maqaamam di la woo waay murit yi ñooma woo ne tawatal nag tëbunu woo saw lammiñe wow xarnu bi tay jii moox ba ne tareet ngir yaama def antal pareet yaama bi xam-xam ne yéreet ci sama xel ji xarnu bi tabul ma tangam lu ci ñaan ngir li ma bon tey ko kañaan mur yëppa la ko ñaan di ba nga dekkal xarnu bi jooy peranta la nu jooy boonu fabu leenu ne wooy ku nu yafal ba ndebi kuy mu dellu naatal xarnu bi gisunu yaay nag te noo ngir am ku ñàkk yaay dey namp maam buural te bootnu ngala daam rogg ni mboolem xarnu bi fabal sa doomi yëpp boot ñoomin ñu boot seenu njoboot ku mun teboon nga jokkomboo ndax yàlla na atal xarnu bi tata murid yee suturaal mottili jàkka ji ñu naal foo tollu dolli seen alaal ndax yàlla na atal xarnu bi ndax yàlla am ni Mustafa tabax jumaayi Mustafa bam toll ne marwata ak saba ndax yàlla na atal xarnu bi mboole murid yëpp ngi jooy ngir lu ñu bay mu dal li gooy ba seeni addiyaa ngi booy saraxnu na atal xarnu bi jamono jaa ngi xiifa xiif luñ togg bargi ne ka fuuf seex bamba neel gën yi mbindeef mu dellu naatal xarnu bi xiif tax na ñenn mag ñi yooy xiif tax na gor su ndaw di jooy xiif tax na yenn tool yi booy sëriñ bi geesul xarnu bi tax na ñi daa joxe ngi laaj ñi jàpp seeni sas di xaaj kenn dootu dem fenn ba waaj sëriñ bi geesul xarnu bi bekkoor bi tax na xol yi tiit bakkaar bi tax na cër yi tuut ñàkk gi tax na kër yi weet sëriñ bi geesul xarnu bi sa dem gi tax na ñëpp jooy nawet di tax dootuñu tooy léeg-léeg mu war ba tooli gooy sëriñ bi geesul xarnu bi xam na ne yaanu daa tawal daanu bayal daanu roñal daanu rojal daa digal feesal nga sàqi xarnu bi si yér mëneenu daa defal nag lu xelajul daanu fabal daanu tibal daanu leer reggal nga mboolem xarnu bi te yërmandeenu daa sanal ne jigéen ñi yaanu daamal te ñëpp a yem kenn amatul sëriñ bi geesul xarnu bi ñaa deena sag sagi kuna ñii seeni gaay daggi kuna ñii seeni gam rekki kuna ngir ñàkk gi ji xarnu be an moona ndax mu tane daaw mu gën a far dellu gannaaw barab yaay sax dina ay mbakke geesul xarnu bi wuy nu nu wuy noo ka torox yalwaana moo kula sarax garab bu daanoo xafe lax bambaando jaama xarnu bi garab gu mag bu nee jirim garab yi ndaw yi di jirim meññen ma say mbir ma xelam lii rekk dal waa xarnu bi allahu akbaru samaan jamono moo mën a safaan xéewali di daa wala nga am ci dabi mboolem xarnu bi li bee si keegi safaraan landaa di woo muy wala nga am ni xelli koppi dina am watay korne xarnu bi astaxfirulal azim tuum na lu nu ndaade bi koom te muy lu neexoon borom njur bele wuute xarnu bi xéewal gi daf daa wal wali bawan ci nun di kel keli moo tax ma jóg di pel peli sëriñ bi geesu xarnu bi xéewal gi daf daa wala ngaan wax seen nga wuute nga ak sayaan xamoo xurëg tund ak sa yaan sam ndoxo màndal xarnu bi wàcc nga yow loo ma sa wax def nga ko jox ku ma te jox daawoonu nax daawoonu ñaax seddoon nga mboolem xarnu bi gàncax gu ndaw gi weddatut mag ñi nga yaar kenn wuddatul moo tax man aara suuxatal nag njëmbat li woon ci xarnu bi njëmbat lii mooy gaa yi ñëwoon daaw yi ci xéewali fi woon tey ñuy def ya ñu bawoon ngir ñàkk gi ci xarnu bi ak ñàkk a bon ci waaju baax nag day tas këram xolam bi jaax daa ceebu tey aña laax jaaxal na mboolem xarnu bi léeg-léeg na nga gis am murit muy taxawaalu ne marit wala mu xàcc def kërit ndaw njombe gaa yi xarnu bi ànd ak commerce ay jaay ñii wajaa seeri baxa ay te xam na yaa doon sunu baay ma tenga naatal xarnu bi ñii ngi xàcc defi seef ñii defi dangir bañ a loof ñii daw baraw bey ñu fiif ma tenga naatal xarnu bi yow la nu yaakaar nag abadaa ngir yaanu tàggaleeg bi daa tuum nanu mboolem lan daan nag bàkkaar yekke ci xarnu bi yaram nu tey yaru nanu dootu nu fo xammi nanu dootu nelaw yewu nanu yaram nu naatal xarnu bi soonu joxoon nag lanu yoroon dootu nu def nanu defoon xanaa yeggoon a yaru nanu ku weddi laa jël xarnu bi yërëm lu nanu torox lu nanu jooy nanu ren saraxtu nanu jébbu nanu soppi ko nanu sarax nu naatal xarnu bi nun tuxu nan sunu këri baay gaddaay def la sunu baay tuubaa di kër bambaa di waay sëriñ bi geesul xarnu bi murit yi isaari nañu ren ngir xam ne yaa leen amewoon yaa leen joxoon lañ yoroon yóbbu nga boo di xarnu bi ci yaañu réccu nañu tey xam nañu bay du suuru boy yaa mën a may ni du ko doy matee nga naatal xarnu bi bawal bawal jolof jolof mboolem parak naar ak wolof kendil kaañu sëriñ bi geesu xarnu bi koo xam ne daanaa mi jaag daa mi angaara ki juug mi an mu am deen mu jeeg sëriñ bi geesul xarnu bee ku masaam yaari wata soxla na ren ji ñaari mata te mun ta am njëgu mata sëriñ bi geesul xarnu be koo xam ne daana ami taax tey mi ngeejoo nee bu baax bu gën a féex bam na ca faax sëriñ bi geesul xarnu bi kër yaa ngi wéet ba ne cundung lal yeng yoroon defi koroŋ ñe dooni buur defi koyeng sëriñ bi geesul xarnu bi tubaab bi sax perte nañu ñi leen gëmoon it peri nañu yaawooti it fay nañu yàlla ngi ci xarnu bi ñetti koon far nañu lang fu njulu dee seen farang adduna yaa kana wéran sëriñ bi geesul xarnu bi naar yaa ngi yalwaan ak a xaar cheikh buñ xamoon dellu fa jaar kenn talatu loo joxi naar sëriñ bi geesul xarnu bi woy mbàkke yuuxu nan ba dee wàllu nu booyee xeenu dee melen la koy ramu ku dee seetul xarnu bi waaye mbàkke yuuxu nan ba dee wàllu lu booyee xeenu dee melen la kuy ramu ku dee yaa ni tinul waa xarnu bi yow yaa dalay Muhammada te yar nga sarabaami daa te yar nga boodi Ahmada man nga defar waa xarnu bi man nga defar biti ak kibiir defar nga baadoolo kibuur yaa diri alarbaak jibeer sàkk mu yi di xarnu bee man nga kanam man sa gannaaw loo sant yàlla mu ne waaw loo ax fa diiwaan ñu ne waaw wax leen ñu naatal xarnu bi samira faate naa gërëm na xarnu bépp am gërëm te am dërëm te yokku gam nga may njariñ waa xarnu bi mal yebu ne gaay la xamut waaju xamul des koy xamal subaana yaa kamat kumal yaa neexawan waa xarnu bi nan fa roññi ko tagg daam ngir moonu may lu jombi maam boole muy dew diraam ak cantawar waa xarnu bi bamba mu ne sulaa misaal yaa géej war waa Sénégal kenn du la jàlle genn gaal nag Seydou sa tooyal xarnu bi Cheikh Bamba yaa ding mbambulaan ku soobu dooti ñaani naan ku mandi di dimbaana teen say kaa sa mandal xarnu bi ku soobu nag génnaale dërëm bekkoor bi dootu dem këram ku ne coram kaasum ngërëm du mal des ci xarnu bi géeju ikam gim daa detam ba ne ko secc moog ñoñom mu jeebu ko a nandal ko xam toqen bi doy na xarnu be luum loono fóoreewi yoon raam loona kang be fi woon daana ne bëri fi neewoon amul niroo ji xarnu bi sorop andaari xam-xamam monsieur si kaa na tel wujjam ayam nga suul na ñoñom wujjam amul ci xarnu bi fekkoon nga nag dabi ne xaleet mu soppi leen wa tey sareet du leen gënal bañ ne sareet wàccoo na moog waa xarnu bi talif na nag mooli feesi taax te xalimaam it du juum du jaax taam xelam it du gàddu naax di fàttaleb ci xarnu bi day duusu donge yi detam duusu jilaaño ñi ci dënam mu yéegir lu andi janam te mu saber ci xarnu bi mbambaari géej gu tabbi géej fekk fa géej gu nekk ko ngiij mu di caliyaare bane giij ñi bii tool xarnu bi lu baax nag du baax ma weesu baax it waande sëriñ bee jàll baax baax ngi yam fi xotti baax baaxaale gaayi xarnu bi waa ji la sopp dal di baax waa ji la weddi dootu baax waa ju gërëm mu gën di baax waaye koor na xarnu bi waayam nag du ñiit gëri ci laax duuti li mboo sagar di daax loxoom di daarati ci paax ku weddi laajal xarnu bee ku weddi lii nag gamal la gan isaa di mbër mu manu gan yaaram la wuute nag sagan bamba ko ñaar ci xarnu bi nga neeli daami gën a tuut xel mënu koo takk di waat mbaa xalimaa ki daayi koot lottal na mboolem xarnu bi xar baax la raw na kuy xiyaas lu xel da jul deesu ko raas fuk raas raw na góoru faas sakkaa ngi teewe xarnu bi moo jara way bañ a selaw guddeeg bëccëg bañ a nelaw baraw ñi daawayel calaw ngir li mu dem ci xarnu bi Seex Bamba yaa bari njëriñ fëriñ nga wuute nga këriñ sëriñ si yaa di seen sëriñ yaa mën a leeral xarnu bi sëriñ si ñoo doon fàtta foor sondeel lu meneb lumière jant la moom faw xana wee leeram gi dar na xarnu bi Seex Bamba yaa di man du waar waayu la tabbi du turéer yaay jant say gaay di yeer leeri gandu ji xarnu bi loolu saabu nan la jàlle na waay Màkka bul dem bàyyi nu yawmal qiyaam ya baale nu cam mboolem xarnu be Seex Bamba yaa ngeen yi keno sa jan yaa doy na ñu dono canan fetal di am kanu say bala mokkal xarnu be bilaa yaa wee nan ci yow waay nan jaw lu mën a xew ngir urwatul wusqa du yow deesu ko dog ci xarnu bi Seex Bamba yaa ngeen ji wurus foo genn xànjal daldi rus gor su la waaje doo turus doy nga takkaal xarnu bi dex nan la ngay sunu takkaay du sin biting di la jaay yaa gani baay gani na jaay yaa gan xarit di xarnu bi Seex Bamba yaa rib li bi door lambur de wute naa ki coor sëriñ ji soobuñ sa mboor nde ko ñu naatal xarnu bi Seex Bamba yaa nu mat borom fekkoo ci haddina morom tooñoo borom tooñoo morom til nu tooñi xarnu bi buur yàlla jox na lay mi daay diiwaan ñi xam nañu sawaay waaju gërëm na këram du daay yaay kerkeraanab xarnu bi Seex Bamba yaa dib kerkeraan ku jëm ci Yàlla na la ñaan soo doon tur nag di alquran yaa boole boo di xarnu be def nan laa géeg bu deebi yeeg te def la mbër mu deebi deeg keleñ mi um nga bari jeeg sabul nag ci mboolem xarnu bi yàlla la jiital nag te qadim tudde la ahmadul qadim jiitu na adama ki doom jiitu na mboolem xarnu bi yow ma aja baabi bale tubaabi jumu yo wala la bamban ñu na ale no taale gaayo xarnu bi sorob de goom nag leleen ne naat te doqi gooni ñi sa naat ñëpp nu tallali baat kenn yënguwul ci xarnu bi mu jàll toog nag ca gàngu naay buur yàlla rang koy mi daay diiwaan bi jox ko seeni gaay nag keroog la atte xarnu bi bi li aay bambaadim kelang moo jàpp seytaane wereng ba tar korendi fa gabong ñi bi sooko xarnu bi xatal tubil beeru leyin kab kaboona dun amin maalemin wal hamin moo ko waxoon waa xarnu be yonent beeg ahlu badar ñoo dakko kar ci kawar seytaan ar meeli ser labbi dew ci xarnu be gabong ña xam nañu biram galwaaya xam nañu biram lambarna seena biram seera suwoor na xarnu bi keroog labbiina waaw maarabu bi bu leen ci gaaw leeram gi sar na asamaaw sar na jus yi xarnu bi tubaabi naa ka nan maro soldaar si naan ka bun mero labbiinaa ka bun woro ñi bili dem nga xarnu bi tëggaay na asamaaw bari yëpp woro nañ na waaw godangi lay na sa ganaandoom ngalam bi xarnu bi kaaraama yaanu ko xamal maqaama yaanu ko amal kaaraanga yaanu ko defal yaa suturaal waa xarnu bi alla kërëg jaama gorog ca dog sëriñ buura ki dag bokka ki jaambur ñépp a jag jaaraama daam ci xarnu bi li nit ku ñuul ak nit ku weex diggante askanul jeex fu nekk daam dana fab seex ba mën a yor waa xarnu bi bi léefi yaana fale boor ko ma saxay taal ba boor di xelli attaaji foor fajon nga aji xarnu be soo daan si war na ne nërëm bii daani war na naam ñëpp di sant kay gërëm ngir yaa defar seen xarnu bi ko merci naa la merci ñoom far yaangu na mojji doom wala fi ne amoo morom yaa dambe taggi xarnu bi kenn dootu doo kem ni nga doo kenn dootu wax kem ni nga wax kenn dootu jox kem ni nga jox dara leewoon nga xarnu bi limaamu saxri ane kamaal téere bi bàmbalay misaal di ñane muy xaboori jaal xut bi yoon ci xarnu bi mbooloo mi xaw seeyoon yaa soobi ngeliñ aan wamman nga ruñ yoroon dekkal ngi wirdu xarnu bi xaadiriw yaasal ngay biram tijaan yaasal ngay biram saasali yaasal ngay biram kunti yi jox la xarnu bi lottal nga ñooñ sariyatu sàmmal nga ñooñ haqiqatu sa ngeer mi mooy tariqatu moo gën a jub ci xarnu bi waram kurusha daa aji ak gaa ngi daan siyaare ji yaa tax ngi daa siyaare ji sëriñ si woon ci xarnu bi wamman nga naar yeeki wolof xalaan nga yoonu tasaw terif yaa teeñu suruf jàlle nga leen ci xarnu bi roy tii bi xut bi nga woon kiima lab daali nga woon kiima lëg-sëg daali woon angu nu jabaaway xarnu bi roy tii bi xut bi nga woon aar yaa tey ti jaandi laaj idaaya tey te musu ñoo weesu bu rëy yow la ñu roy ci xarnu bi Seex Bamba yaa di am na wet képp bi nga tooy nga gepp wet bay nga mu ñor góom nga ba fat man ngaa dundal waa xarnu bi dundal nu noo di sa njaboot waddunu neenu wàkk boot te suturaal nu ma